président Alioune devant la première révolution où je est dans le secteur de la pêche Moi, je dis dans l'agenda du gouvernement une journée nationale pour la pêche Une journée mondiale journée mondiale Mais mais journée nationale c'est bokk ci agenda au président de la République wax naa ak moom ci biir bés xam naa loolu dina ko nangu te président Aliou Thiam mi ngi sa loxo président bind na ko moom fi moo ci des mais wax nañu moom ba bind na lool bu dafa nekkoon sama mbir ba may wax ak moom ma échanger moom ci loolu mu jox ma ci kàddoom ma xam ni bët du yema waaye xam na lu bopp antal ku ci nekk boo ko joxee li moom liggéey bi dafay oyof set te am njëriñ ak it c'est la raison pour laquelle billaahi wallaahi tallaahi bu doon yaabus du moo ko dund dootu ñëw tey jii cent quinze mille tonnes la pêche industrielle di quarante mille huit cent soixante sept gars yi moo koy yor contrôlé ko kon ci def muy soixante dix milliards contrôlé ah, dal kon lu ma wax nit lu ma gëm lu ma gëstu lu ma xam na lu ma teg sama bët la ak sama loxo bii bu ko antunu loolu du ma ko ko wax général laa njëkk a xam kii ngeen gi nii laa njëkk a xam Aliou Dia bi fi laa leen fekk ci taabal yi ñoom ñu nangoo bokk ci ginnaawam alors ministre Pape Sagna Mbaye defal ñu tey ñu koy soog a am si ministre organisé sa ndaje même pas vingt quatre heures mu ne dinaa ñëw teewee monsieur le ministre ñu ngi lay sant bu baax a baax kaf si nay moom yaakaar naa ñëpp am nañ si secteur bi ndax bu bool si secteur de la pêche yaakaar naa ñëpp sol ñëpp si secteur bi tey ñu ngi lii lépp mënu koo passé si un ministre nii ñëpp mënu koo passé Ya, nah, ini ku yang akan yaakaar naa dara dootu la doy ndax nit ku ne sa bés nga am ku am sa bés sa kilifa jox yow teewe wàcce naa yow ba na vacances ñun ñoo si des a mooy monsieur le ministre jàppal ne CAF ànd naa ak si liggéey bi ndax ñun CAF li ñu mooy développement li ñu mooy avancement secteur de la pêche naa ku xool banderole bi loolu rek doy ndax yéen ñëpp ñenn ko tuddee CAF c'est la mu ngi ne CAF c'est la solution uh, léeg-léeg une pexe bu laal yaakaar naa képp kuy nappkat loolu la soxla kàpp suñu mbir pour nga pour nga fa gàddaa laa ressource yaakaar naa ñun ñëpp loolu lañ soxla ndax secteur bi soxla lay nekk ci ba jógee suñuy doom suñuy sët continuer di ci liggéey bon nag ñun kàpp suñu wàll boobu la tracé te yaakaar naa képp ku ñëw bëgg lu baax si yoon boobu ngay ànd monsieur le ministre kàpp su tàllal na lay pour ànd yow liggéey pour le développement du secteur de la pêche du Sénégal. ñu ñëw waa Kaffrine bu teew yëpp nag délégation bi ñëpp teew nañ parce que ñi buñ ko waajoon duñ ko defee ñi fi teew ñëpp muy allié yi ñi nga xam ne dañu yor ay organisation engrais di liggéey mi ñi nga xam ne ay coordinateur lañ fi ñu dëkk ànd ak seen liggéey. ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm di